Boy Jaxaaw moom la ñu jàkkaar lool Tigre mbokk yi moo ñu wan ginnaaw Boy Jaxaaw Tigre Junior Tigre Junior am na la muy jat Boy Jaxaaw pare na moo ngay lewaatoo ak moom Boy Jaxaaw Tigre Junior Tigre Junior dem na Boy Jaxaaw wàcc na ci ay tànkam Boy Jaxaaw Tigre Junior Tigre Junior cokaas na léegi waaye dalul Tigre Junior pied gauche teg Boy Jaxaaw teg pied droite Tigre Junior ñëwaat na ci digg géew bi Tigre ñoo ngay xeex Ba Ndiaga waxoon na ma ko nee dina neex dina yëngu wala boog xeex nañu Boy Jaxaaw Tigre Boy Jaxaaw Tigre Bado Kaawu Boy Jaxaaw Tigre ñoo ngay xeex xeex nañu xeex bu sax léegi Boy Jaxaaw Tigre Boy Jaxaaw am na loxo ci ngemb Ardo Ardo Boy Jaxaaw Ardo Boy Jaxaaw dem na Ardo ñoom ñaar ñëpp dem nañu Ardo xeex nañu léegi ñoom ñaar xeex bu neex xeex nañu léegi eh, Tigre door na ko léegi coup bu dal Tigre door na Boy Jaxaaw ñoo ngay xeex mbaa bu continuer nii kaawoo du ci am mbaa bu continuer nii kaaw du ci am mbaa bu continuer nii kaawoo du ci am ñoo ngay xeex ñoo ngay xeex Boy Jaxaaw Tigre Boy Jaxaaw daay eh, xale yi xeex nañu léegi xeex bu metti xale yi doorante nañu léegi ardo Ardo Tigre dem na Ardo Tigre dem na Ardo oh xale yi xeex nañu. arbitre bi sifflé waat na combat baa ngi dox ci diggante Boy Diakhao ak Tigre ñoo ngay lewaatoo di demee wet. yaakaar naa ne xeex boobu bu continuer dàquma ci dóor mu daanu wala dàquma ci dóor mu gaaw a jógaat waaye ni ko bëngaay di waxe kat appi jël la ku nu dóor nga daanu yaa koy yëg boo jaxaaw gàtt na léegi ba mu neexoo mu njoolaat Boy Diakhao daal dafa bëgg a imposer wu bii Dakar ñëw na tuus tuus bu neex ande ambiance Diguy Junior ñoo tuus mbokk yi boo xoolee sat bi ñëppa a ngi ne teg waykat yi ngay dégg ak tëggkat yi amateurs yi mbokk yi ba jeex na arbitre bi sifflé waat na Boy Diakhao Tigre Junior bëre nañu ba mi-temps Boy Diakhao Tigre Junior Boy Diakhao Tigre Junior ñoo ngay demee wet wala boog ñoo ngay wër wër la Boy Diakhao Tigre Boy Diakhao mépp na léegi waaye demul dañuy napp dañuy nattante ñoom ñaar Boy Diakhao cokkaas na léegi arbitre bi woowaat na leen ci diggi géew bi Tigui cokaas na léegi Tigui dal na tànk Boy Diakhao Boy Diakhao koy doo baadu kaawoo ñoo ngay xeex oh dañoo tolloo doole xale yi dañoo tolloo doole ba ardo du ci am yoon ba ardo du ci am yoon waaw ñoom ñaar ñoo nga ca digg géew ba Boy Diakhao door léegi eh Boy Diakhao Boy Diakhao def góos duraat waaye na mu xeexeek moom baaxul am Diop joxal Ndiaye am Diop joxal Ndiaye gi bëgguma ko ba kaawoo ci am am Diop joxal njaay ñoom ñaar ña ngay dóorante pàdd léegi moom Tigre passe ko léegi Boy Jaxaaw est-ce que sonnul est-ce que Boy Jaxaaw sonnul waaw Boy Jaxaaw daa sonn Boy Jaxaaw daa sonn Boy Jaxaaw dafa sonn day noppalu Boy Jaxaaw dafa sonn day noppalu am na la muy waxante ak Abidjan dafa sonnu Boy Diakhao am na trois avertissement Boy Diakhao am na trois avertissement saqatal na ko léegi Boy Diakhao Tigre lewaatoo bi bar na léegi Boy Diakhao Tigre Boy Diakhao Tigre Tigre fatt na ee eh, Tigre fësës ko léegi Boy Diakhao dóor ko Boy Jaxaaw Tigre Boy Jaxaaw Tigre temps ba jeex na ñoo ngay xeex jox nañ victoire ki nga xamante ne nii mooy Tigre am na ndam ci kaw Boy boo Boy Diakhao Tigre am na ndam.